Ama maa ngi lay ziar. waaw ñooñu doon ziar bu rëy. Ama barki démb. seet naa la Colobane. nuyonte nañ su TV ñoo ñëw di la laaj. ren xaa taxawaay bi yàgg na. toogaay bi yàgg na. lan moo ko waral Ama. waa lépp sant yàlla xam nga tey bu fekkoon luñ bëgg. Hmm. dañuy am combat waaye yàlla mooy dogal. dëgg la waaw sant yàlla bu baax baax. doon nañu may ay combat. yu bëree bëri tey bu ñu amee balancé dañuy sant yàlla bu baax a baax xam ne mbiru suñu borom la. damaa déggoon ñuy wax sa combat ak Tapha Tine di dégg ñuy wax sa combat ak ak Gris Bordeaux déggaat ñenn ñi di dox ci suuf sa combat yi ak Bombardier ban ban ban ban ban càmbar nga mën a càmbar ci ñetti combat yi ñu la jox ak ban ak ban nga ci gën a yaakaar ne bu déwénee yaakaar nga ne am nga yàqin ne dina sotti ama waaw ñett ñooñu sama adversaire lañ xam na waaw de taay te tamit ah, boo xool na nga xam lépp mbiru yàlla parce boo xam ni dama benn produit boo xam ne dama war a amee balance comprendre nga kon ministre yàlla suñu borom ñetti ñooñu déwén ku si ñëw rek baax na ku suma yàlla jox damay sant yàlla bu baax baax. man nag maa Gris Bordeaux laa ci gën gis. waaw boobu moo si gën a neex sax. waaw booy combat jànq daa mel. waaw moo si gën a neex sax. waa njëriñam li de. waaw waaw waaw ca akasa ñoo ñëpp sant nañ bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf sa télé bi yàlla si yàlla def jàmm. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup waa yokk sëñ Tuubaa